mais bii yoon wa saariqu wa saariqatu moom uh-huh. waaw waaw waaw du demee noonu waaw mais eh, boo ñu def mu jaar yoon ah bu jaarul yoon ñu jaar yoon rek waaw ñi rek la demee waaw ah. xam dinañ ne waaw kii moom lu mu xew la tey waaw waaye fekk na rekk dama xam ni bu ma waxul dina am gor yu dul nelaw ñi sonn ci senegal dañu bare te am na ñu nga xam ne xamuñu fu ñu jëm ne xam ngeen ni ñii di dugg ci gaal yi di dee ci ndox mi ndax bëgg a génn réew mi dem feneen loolu lu ko jar loolu c'est trop ndax réew mu doy waar ñuy nax nit ñi rekk yu kenn xamul di jël ay milliards di ko yàqate nekk fii di foye nit ñi rek ah yu kenn xamul dem di jënd ay bonbon ah te jumaa jaa ngi nii ni tekk kenn mënu ku ko yeggale ah, ñuy nax nit ñi ni li ci des barewul te fekk ay onze milliards et quelque ko defee nañ bàyyi foy te jublu ci dëgg jublu yi ci li ñu xam ñu xam ko li jaadu jaadu parce que itam Niger warul ñu ëpp fayda di fii la France doon nekk di yëngali loxo naan day écraser junte euh, militaire bi nekk euh, Niger ndax seen ambassadeur du ambassadeur baa nga ne par force woon nañ ko pour mu dem ñibbi France parce que font baaxul xontu baaxul ñun ñooñu ñooñu ëpp fulla te ñooñu ëpp fayda waaw parce que ñun ku ñu jox euh, cere baasi salte rek ñu génn ci li ñu nekkoon te loolu baaxul loolu baaxul na ngeen am fayda nag te ngeen taxu waaw waxuñu ko pour dem di xeex mais jël suñu responsabilité ba lu ñu warul nangu duñ ko nangu et puis surtout noonu rek la demee waaw bu ko defee kon nag bu ngeen bu leen neexee ngeen dem nit daf doon def meeting on s'en fout waaw waaw bu meeting jotee di ngeen xam ne meeting naa waaw waaye mu ngi ci kanam di ñëw waaw bu soobee yàlla bu boobaa ñi fi am solo ñëpp dinañ leen dajale waaw incha allah bu ko defee rek ngeen bal ñu àq mbokk yëpp xam naa doon gen xaar leneen sax waaye bu ma waxoon asalaamualeykum rek doy na du dëgg dama ko fàtte tey xam naa li ma doon xuloo moo tax waaw kon nag asalaamualeykum waaw <laughs> kon ma jox capitaine mu sànni ay baat bu noppee ñu joxe ñaan libéré nit ñi ndax dafa nit ñi dañu fatigué am na ñoo xam ne sonn nañu lool surtout sunu gan ñi am nañu sunu gan aussi bu jóge Paris xam nañ duñ ko fàttee tudd waaye xam naa capitaine dana ko tudd ndax ñoom ñoo ma recommandé ak moom algérien la Paris la nekk bokk ci tariqa Cheikh Ahmed Tijani Chérif am lu ko yitteel nag ndax sëriñam ba mu amoon dafa faatu ñu dafa bëgg ñëw nag fii ci Sénégal rekk jokk li muy jokk fii yeggalee léppam ba xale yi jëli nañ ko indi nañ ko xam naa kon capitaine dina ci yegg ak yéen bu paree rek ñu joxe ñaan li libéré nit ñi ñëpp dem récupérer ba suba incha allah lu ñuy yeggale ñu yeggale ko ngeen bal ñu àq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.